sallam daldi neet masalu lasina melor ñooña yunfiqoon danañu sadakaan la alal ñoo jitteen fi sabilillah ci yoonu yàlla ñi nga xam ne ñu ngi sadaka seen alal ci yoonu xam nga nañ melam xam na sari abatin samsat an batat saxal nañu sadaka bi la juróom yaari jub mi ngi mel ni benn bu saxal juróom ñaari jub ci kulli sun julatin wettu jub bu nekk ji waa ñaar téeméer boo xamee ne jaam bi sadaxa na benn yàlla daf koy sila neel moom di ko fay benn ba muy fukk wala ba ñaar téeméer de wala yàlla we daa fa dama ni ful li ma ne ku ñu faat wala yàlla waa kan aji yàlla nga ne adduna la ñu xam ne mooy bi deesul rek la xeeral bala xamee ne wàcc na Abdurahmaan ibn Awf ñëw ne yonent sallallahu alayhi wa sallam joxe naa sama genn wàll xalal yëpp yoonu yàlla yonent ne ko yàlla yàlla barkeel li nga joxe ak la fa def alalam jadi ma di di sëkkana nii sax ba xam ne tey moom mujj na alalam a ngi dayo moo ëpp la gannaaw yam ay ay ay ngarka lañu kabam di gas urus yi xam ne moom la tëloon waa di ko dajale pour ñu mën ko miraase jenn jigéen ci ñeneen ci jabaram mu ne waa rëbbam timin bi nga xam ne tey moodu yàllam moom di ko nit nañ ko jox rek juróom ñett ci junnee ni bi door bi di ko ñu daal di ko jox loolu rek nga xam ne dafay lu ñu door moom bari na

kan wala nga jitté ni sa dira ci ni wala tan sa wa ba sun tan na wal tapala am ba sa xal ni sala sa nabi rabbil alamin yaara jitté ci sun bi la sun a gina kala ci yé te dib ni ko habba tin te ni tapé naka ni ñu sun sa raxé dañ dañ koy ci lené ni ci jiro ñaar te ngel wala ya la yeda ak dañ ci lu gëna tay ñu ko tay wala ya la ya ko ay yaara ngel dal yàlla ko yàlla fay ci xeetam si ne yàlla dolli sama xeet mu ne sama sali habbatin ambatat sab'a sanaabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbatin mu ne yàlla dolli sama xeet mu wax laa yore yoon démb man ko desi yaxruju laa xasan xasan bi ko baax wala abaaxan kasiratan loolu ëpp nañu juróom ñaar téeméer de waaw mu ne yàlla dolli sama xeet mu ne innamaa yuwaffa-s-saabiruna ajrahum bi xayri hisaab yàlla dana leen fay fay goo xam ne amul ab lim de waaw mu ne yàlla gërëm naa gërëm naa gis nga jaam bi soo xamee di nit am na itte itte woo naa def lu bon te defit ko yàlla di ko ca bindal benn bàkkaar su fekkee itte def lu def ko benn yoon benn yoon lañ ko koy bindal su fekkee ni itte na def lu baax nag te defi ko yàlla bindal ko ne def na ko

raqib ak atid la raqib mooy buur bi mooy nekk ci a ndeyjoor atid mooy moo nekk ci sa càmmoñ rek tey bind fukki yoon wala juróom-ñaar téeméer wala lu yàlla dogalal rek tey rek soo defee lu gam atid moom balaa soo bind dina tàgg raqib raqib ne ko muñal ko ñetti waxtu waaw muñal ko waxtu nga xam ne moom lañ ko war a muñal nag toujours mm-hmm. waaw defu dara lu baax lu ko faral ñu julli ko benn yoon sore waaw suñ mbokk mi day sagal na waaw bu jëkk ne soo benn benn yooyu nga xam ne yii